di gërëm suñu mbokk Gàmbi yi nga xam ne euh, ñëw nañu fii tey fii si ANPEJ mu nekk nag mbég si si ñun ak contentement euh, parce que nag Gàmbi ak Sénégal benn la ay benn dëkk la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc suñu ñëwee fii tey euh, pour ñu waxtaan ci ci wàllu boo xam dañ ciy liggéey dañ koy rafetlu donc ñu leen di souhaiter la bienvenue fii Sénégal di wax ne daje yi ni daje. lu am solo la lu am solo la pour dëkk yi parce que dafay permettre lu ñu xam ak ñoom lu ñu xam ñu mun koo boole pour mun a jëmale suñu programme yi ci kanam yaa ngi doon wax euh, si si programme accompagnement yi nga xam ne PME ou PMD bu nga xam ne ak Allemagne yi ñoo ko ñoom lañ ko defal euh, programme bu am solo la ci 2007 2017 ba léegi 700 millions dégagé nañ ko pour accompagner les jeunes Nous 700 millions de donc nous euh, profitons occasion de remercier notre partenaire de euh, notre frère et ami Idali Kamara, avec ses équipes avec le centre Sénégal, l'équipe équipe équipes fi pour parce que dañu tàmm ci réew mi yu ñu jox ay financement dañuy joxe xaalis te gis nañ ne euh, financement yu ci bëri day nasaxaay comme ñoom nag on a compris ça pour bañ xaalis boobu di dem dañu préférer léegi euh, xaalis bi duñu leen ko jox mais dañ leen di jëndal loo xam ne lu méngoo ak programme bi jëndal leen ko en matériel boo xam ne dina leen accompagner ba ci première phase bi loolu permettre na ay jeunes yu bare bare bare tey yoo xam ne tey créé nañ seen entreprise bay comment bay jëli ñeneen di leen liggéeylu créé richesse di si dund donc programme mu am nekk programme bu am solo boo xam ne am na fii suñu mbokk waa Gambie aussi ñu ngi koy commencé ci ça fait deux ans suñu frère Kawsu moo moom moo koy jiite foofu ñu ñëw fii pour waxtaan ak ñun euh, li nga xam ne ñun ñoo ci jiitu mën a partager ñoom itam ak seen i défi ñu xool nan la ñuy partager pour que en tout cas suñu ñaari structures yi mën ci gis njëriñ njëriñ joo xamante ne day wasa wasaare ba ci ndaw yëpp voilà loolu daal mooy euh, objectif rencontre bi tey. man la maa ngi tudda Assane Gueye maa ngi jógee Gambie maay euh, permanent secretary bu nekk ministre of commerce bu amee bu Gambie bu amee regional integration ak also bu amee employé maanaam wàllum liggéey bi daanaka soo si ministre boobu laa jóge ànda ànda délégation bi waaw délégation boo xam ne. dafa comprise of partners ñuy liggéey ak GIZ biir Gambie so délégation bu am solo la bi ko soo xoolee kilifa délégation yi balaa ekkati dana nañu dem seet lu ñuy mun a gis biir Sénégal because óor naa ñu ne GIZ am na Ghana GIZ am na dëkk yu bëri Afrique waaye dama dee wax rek toujours maa suma ministre dañ koy discours ne mënuloo am partner bu ëpp Sénégal mm. because su suñ suñ luñ bokkee mm. si culture ak buñ bokké ci si proximité mooy eh, jegeñante ak yu bari bari so amul fenen fu ñuy war a muna pour seet pour wara mëna jàngé good experience dans Sénégal so déga déga kontan bëgg na té luñu wax gis nañ ko buñ ñëwé ba tay luñ jàngagum suuf ak buñ délo fu na dé nañ wara a def yu bari bari yoo xamné jàngé nañ ko ci Sénégal dina mëna a suñu projet buñ am Gambie ndaw yi waaw because luñu wax rek moy so xolé légui Afrique ak nu mel ndaw yi ñu amé dëkk bi ñun gambi bi dafa amone ben census sos bu ñu defoon ñu realize ne 64 of population ne Gambie xale lañ daanaka deka su wara dem kanam fokk halé yi juk fokk halé taku fokk nga organiser halé yi ñu wara mëna yobu bi kanam because so amé deka bo xam ne 64 percent ñata in France 54 percent xamné moy population ñu ñu ñu ñu amee you know so development bi ñu ñu la wara a doon nga wara pour jagar leen former leen ñu war a mun a toog defar si defar dëkk bi développe dëkk bi so basically yëngatu Gambie moom su lañ jóg nii kii maa ngi àndal directeur yi ku amee ba maanaam liggéey bi Gambie moo mën a ànd ñëw te jóg fu nekk nii jóg nañ ne foog ñu jëm a former seet xale yi de gëmloo leen ne mun nañoo toog Gambie tekki tekki tekki biir Afrique mm-hmm. daanaka ba sëy so loolu yëpp ñu ngi see liggéey te am nañ partenaire yoo xam ne ñu ngi see jàppale bu baax a baax mooy mooy mooy GIZ tey maa ngi ànd ak seen seen coordinateur bi mooy Kawsu Sila boo xam ne liggéey bu rafet lañ commencé ak moom te gis nañ si ay ay njëriñ yu bëree bëreegul waaw